asalaamaaleykum mbokk yi dal leen nag jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi Ousmane Sonko mi tase woon ak taskatu xibaar yi gannaaw bi ñu waxee ni dañ koy yóbbu ca chambre criminelle moom la journal yëpp xëyee ubbi le témoin ci journal bi moom Ousmane Sonko moo ngi xam le ni mbir mi du lenn lu dul ab complot bu ñu nas la te ki ko jiite léegi du kenn ku dul juge d'instruction bii di Maham Diallo ci journal bi di Source A moo ngi xam le ni gisul juge bi ko mun a àtte lu toll ci juróomi ati kaso teg ci ne fii ba keroog muy sangoo suufu dina résister te gisul kenn ku koy teree doon candidat ca élection présidentielle 2024 yu ñu jëmmal ci les échos moo ngi xam leen ni président Macky Sall nekkatul adversaire bu benn opposant waaye lii di justice bi ak yenn magistrat yoo xamante ne fi lenn lu dul bëgg a yàkkal ci journal bi di l'indépendant kii di El Hadji Diouf moo ngi xam leen ni kii di Ousmane Sonko ab nitu fitna la pour réew mi ba tax na moo ngi woon ñi nga xamante ne mooy jeunesse bi ànd ak moom nañuy bàyyi xel te yeew bu baax a baax gannaaw bi ko Ousmane Sonko tuumalee ni moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo complotoo li ñu mel ci journal bi di l'Observateur moom maître Dio Diagne moo ngi tontu di xam leen ni su fekkoon ni comploté na dëgg ci ndoddam moom mi tekkiwul dala ko ne ani lan moo tax moomu Ousmane Sonko ba muy bind plaintam yi boolewu ko ci journal bi Le Mandat moo ngi xam le ni moom maître Dio Diagne amul lenn lu muy yëg lu dul ab yërmande ci père de famille ak boroomu kër bu mel ni Ousmane Sonko ñu ñëw ci wax waxeete bi ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Wilane def ak journal les échos moomu porte parole lu PS bi waxoon ni président Macky Sall mënul dafa ab troisième mandat dellu na ci ay kàddum moo ngi xam xamle ni lii di candidature président Macky Sall a jotagul ci vox populi moo ngi xam le ni li waral mu wax lii yépp du lenn lu dul yëkkati parti am bii di PS ndax xamoon na ni bu waxee waxumu troisième mandat wu Macky Sall ne mënu koo def ab parti dina yëkkatu lii rek moo taxoon mu def ko desandi ci troisième mandat bi journal bi di tribune bi ñuy Sall dina bokk ci élection wala du ci bokk ki di Amadou Ba ak Idrissa Seck ñoo ngi ru mandat ci suufu momo premier ministre ba sol nam bu bu deuxième plan ngir ki di Macky Sall bu def le troisième mandat momo Idrissa Seck gannaaw ñak deggo bi am digganteem ak Macky Sall bëggul lenn lu dul ñu investir ko ci élection 2024 yi ñu jëmmal wax ci concours créma ak journal bi di bes bi le jour momo journal bi ngi ñuy xamal ni lu tollu ci 60 000 ñoo bindu ci concours bi te soxlawuñu lu dul 1500 enseignants tek ci ne candidat candidat bu nekk lu toll ci 10 000 francs lañ lay laajte maanaam bu ñu sukkandikoo ci yooyu yëpp état dugal na ci poosam lu toll ci 600 millions dugal ci suñu làmb kii di Ama Baldé jox na kàddoom kii di Boy Niang di ko xamal ni mën na bëre ak Modou Lo Vieux naan ko munoo tere kenn mu signé ab contrat lenn de xam naa ko keneen ku fi signé contrat bu dul contrat wu troisième mandat ndax Ibou Ndafa dina ci bokk wala du ci bokk yaa ngi ci erreur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 faudra partir. ñu yendoog jàmm.